bés ba ca tegu muy ñetteel ba ñu xaar ba sonn yonent bi génnul toog néegam naafila néegam dal di noppi bor seet mu ne laa biig day xaar ngeen ma lool de ne waaw waaw ne ah man day damaa ragaloon dal di génnaat mu nekk lu nose lool nekk yiw lool borom bi subhanahu wa taala farataal ko te du ngeen ko attan yërmande boobu daal moo ma teree génn kon ñu wéy ku nekk di naafilaal boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn aduna Umar ibnul Xattaab ne farataal jeex na ndaxte li ñu doon jokkale asamaan ak suuf jeex na yonent bi nekkatu fi kon lu ñuy farataal ak lu ñuy bañ a farataal jeex na nañu delluwaat ci asl li nga xam ne noonu la ko yonent bi defoo woon mu nekk lu ñu organiser kon loolu dëppoo ne am na tegtal bu leer ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man qaama ramadaana imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zanbi képp ku taxaw julli ci weeru koor bu dul farata nga xam ne ab naafila la jéggal nañ la say bàkkaar boo mosa def jéggal nañ la kon loolu omar ibnul xataab bu ñëwee tuddee ko bid'a bi maana al mubaadara bi maana lii daal mooy jóg delluwaat ci mbir kon bid'a foofu loolu lay dal di tekki wala mu nekk bid'atun ci luga maanaam lugal arabiya day am ñaari sens benn sens bi di ci wàllu làmmeñ la jëm beneen sens bi ci wàllu tënku sari ala jëm boroom xam-xam yi leeralee ko assolaa ku mosul xam diine xamul islaam waaye dégg na lugal arabiya boo ko noon rek salli lana moom day lay tàlla leen ma ñaanal leen ndaxte assolaa bi maanaa du'a kon salli foofu day nekk udu lana waaye koo xam ne nag moom xam na islaam xam na sariya boo ko noon salli lana rek da lay wax ne aqimu sala taxawalal bu ñu dal di julli kon ci ñaari sens yooyu sens bu nekk dañ koy jëfandikoo kon foo fekk bid'a ci lu am tegtal lu ñuy jëf ci sariya kooku ci sens langue bi rek lay doon littéraire bi waaye du nekk ci sensu bi gi ñu sharia looloo taxoon Umar ibnul Xattaab tuddee ko foofu bid'a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee boppam bid'a waaye boo delloo loolu yépp day nekk du tëdd ci tërilinu bid'a bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne kullu bid'atin dalaala wa kullu dalaalatin fi naar bid'a bu nekk rek réer la te réer bu nekk day yóbbee boromam safara inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon kullu boobu mooy lépp lu amul tegtal nga fas yéene jaamoo ci yàlla te borom téere bii waxoon lañu ne lépp luy jëriñ xeet wi rek yonent bi wax nañu ne taxaw leen ci xër leen ci kon yonent bi jóge fi abu bakrin jóge fi umar ibnul xataab jóge fi osmaan ibnu affan jóge fi ali ibnu abi taalibin jóge fi yeneen boroom xam-xam yu mag yooyu yépp jóge fi ba assi a ñëw ci dawlal fatimiya lu ëpp ñetti téeméeri at ñu sos loo xam ne day nekk yoon wu ñuy jaamoo borom bi subhanahu wa taala mustahil munul ne li mu mun a doon rek mooy al bid'a ngir defar sa politique waaye nañu delluwaat ci événement yi ñu toll gàmmo léegi lu mu jëriñ ummal islamiya lu dul defar sa politique li taxoon ñu sos ko ba léegi ci yoon woowu la jëm lan la jëriñ islaam lu dul defar sa politique lu dul jàngale sa maam jàngale sa baay wone sa kër mais loolu dong la jëriñ lan la jëriñaat leneen loo xam ne day tax umma bi delluwaat ci ba léegi la taxoon si ay créé ko ba léegi wàccul yoon woowu yoon woowu rek la jaar ba léegi nañu dem fi ñuy gàmmoo yépp ñu gis ndax dangay ñëw yokkub iman waaye al aks dangay ñëw ñàkk iman ba nga amoon ndax dañ lay woon loo xam ne lu lu soof la ñu ne boo ko defee jéggal nañu la nga yow nga ñëw fasu ca loola wala ñu jox la ay askar yoo xam ne alquran diglewu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam diglewu ko jaarul benn yoon ay bidaa kese wala ñu ñëw lënkale la ak doomu aadama boo xam ne dangay gëm ne rek boo wuuteeg moom alku nga te dangay gëm ne moom lépp lu mu jëf rek am na yoon ngir jëf loolu yàq li ndaxte yow zahir nga xam-xamoo baatin waaye dëgg-dëgg nag ñaawteef moom ku ko jëf moom amul zahir ak baatin saay-saay nga amul zahir ak baatin de ñaawteef ku ko jëf rek bul xool zahir bul xool baatin aa sin dafa mooy yàlla rek wuute te bépp mooykat yàlla moom munuñ ciy gis loo xam ne ci jàmm la jëm fitna yi ciy juddoo sax bu fekkoon ne sunna la léegi mais fitna ya cay juddoo sax heure boobu dina jar ñu sàgganee sunna bu mel noona waxatuma lag ba mu nekkee bidaa wàllu gu ne boo ci seetee da nga gis lu cay juddoo loo xam ne day tax ñu bàyyi farata jilsa bi nga xam ne mooy boo amee ñaari rakka toogaay boobu ngay toog toogaayub sunna la boo ko fàttee ba soobu ci farata sax buñ la sàbbaalee doo dellu si waaw bu fekkee nag ab sunna day dem nag ba nekk dañuy faatu farata soga mun a def sunna boobu wala dañuy defu bàkkaar soga mun a def sunna boobu li nga xam ne mooy saddu rixaal ah kon mbir mooma day dellu si waat ca la ñuy delluwaat dal di ko seetaat settantalaat ko li am moom ba fés mooy mbir mi bid ala de te bid a sayyi ala nekkul bid a xasanan abadan bid a sayyi a ngir ne yonentu bi sallallahu alayhi wasallam moytu woon na xeet wi loola dañu ko moytu dal di ko sori kon nag lañuy gëm ngëm ba di ñu jëriñ mooy mboole seen jàmm daal yonentu bi digal nañu ko mboole seen safaan ba yonentu bi sallallahu alayhi wasallam moytuloo nañu ko te jàmm jooja jim ñu digal nag mooy lañuy tuddee at tawhid lu pas-pas wone rek looloo mun a nekk jàmm jooju te loolu mooy lii bégal borom bi subhanahu wa taala borom bi mësul bégee bidaa gannaaw ba ñu dëppoone bidaa la nañ ko fa baax borom bi subhanahu wa taala mësul bégee bidaa def ñu waxoon ne day du ngeen mun a gëm abadan lu dul da ngeen wommatu gannaaw kii kooku mooy kan mooy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mësu koo def mësu koo digle naam doon na woor nañu woor moo tax koor googu wéy na doon sunna ila an yarisa allahu l arda ba bés penc taxaw woor altine bu na jot sunna lay dal di doon gannaaw moom la màggalee woon kon ab juddoom waaye nañu ko màggalalee noonu ab juddoom kon ñun lan moo tax bés bu ne dañuy toog fukki weer ak ñaar soog ko koo màggalal te ñu ngi ko koy màggalalee safaanoo na mu doon màggalee moom lekk ak naan ak xawaareeg yàq ak wax yoo xam ne amul njariñ kon loolu day ku am xel ku ne war na dellu si waat dal di ko seetaat li taxoon umar defu ko te ni mu xëree woon mu dal di bàyyi li taxoon ki nga xam ne moom la ñuy màggal te la mu tëral dong mooy doon sariya defu ko woon waaye tere woon na li nu mel kon loolu itam dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax ñu yëg ne nag bidaa la gannaaw ba mu saxee nekk bidaa nag day dugg ci li ñuy borom bi subhanahu wa taala tere woon yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam tere ñu ko te loolu mooy lépp luy merloo borom bi subhanahu man day yonentu yàlla laa jëm ci yow mboole seen doomu aadama kon sa jaamu yàlla du wér lu dul den koo defee ni ma koy defee lu dul den koo waxee ni ma koy waxee lu dul den koo tënkee ni ma koy tënkee te moom ci boppam diine mat na te gàmmu bokk ci diine matoon na ba borom bi ne matal naa ko te mbir mooma bokk ci woon moo taxoon aaya boobu wàcc ci xijjatul wada borom bi subhanahu wa taala dal di ñu wax ne alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diina muy ñetti baat yu ama am solo yu ñu war a bàyyi xel nag akmaltu atmamtu raditu akmaltu mat na atmamtu mottali naa raditu bég na kon ñett yii daa am lu muy tënk kon la mu waxoon mat na loo ca yokkaat loolu ab yokk lay dal di doon waaw borom bi subhanahu wa taala dina nangu yokk boobu wala du ko nangu li wérte wóor mooy du ko nangu ndaxte bu bokkoon ca la koy bégal kon dina ko dolli ci diine ji kon su fekkee ne loolu ci la bokkoon kon borom bi subhanahu wa taala li mu wax mat na dañ koy seetaat ah ci la bokk te ñëwagul ñu ne mat na kay matul kon gannaaw ba mu ne mat na mooy bokk ca woon gannaaw ba mu ne radiitu kon moom bég na ci lii kon boo ko yokkee amaan na la nga ca yokk mooy tax bégatu ndaxte moom bugguloon loola bugguloon mbir mooma dal di ci bokk moo tax mu ne mat na te mbir mi ñëwagul ñetteel ba ñi ko indi ñu génn topp lañu lu ñu jara bàyyi xel la chi ay ñoo ko indi te de ñu génn topp lañu ndaxte tëralin bi nga xam ne mooy manhaju salafu saalix ñoom d'accord ñu ci loolu te la taxoon ñuy tëral yooya lañu ca doon def mooy rëbb ay saxaaba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fexe néewal teraanga lu mel ni alxulafaa u rasiduun dal di leen xas dal di leen diingat dal di wax lu bon ci ñoom dal di yëkkati ñeneen loolu moo lal li nga xam ne ni la gàmmo sosoo te boo seetee ba léegi ci loolu lay wéy ba fi ñu toll ndaxte manhaju salafu saalix lañ fay néewal doole te loolu mooy doxalinu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ay bid a lañ fay yëkkati te loolu mooy doxalinu sii a yi nga xam ne ñoo ko sosoon kon loolu itam ñu bokk bàyyi ci xel bu baax a baax loolu moo tax imaamu malikin rahimahullah waxoon wax ju am solo yi ñu war a bàyyi xel mu ne nag na ngeen yëg ne keroog ba aaya bi wàccee lu bokkuloon ci diine ji dootu ci mun a bokk abadan maa lam yakun diinan laa yumkinu lyawma an yakuna diina mu ne keroog la bokkuloon ba duñ ko tuddee diine keroog kenn tey kenn dootu ko mun a tuddee diine te ci wax jooju nag lañu yonent bi xooloon neñu taraktukum ala almahajjati albayda layluha ka nahaariha laa yaziigu anha baadi illa haalik mu ne bàyyi naa leen xàll wu leer naññ kenn du ko jàdd sama gannaaw lu dul ku nar a alku waaye xàll wu leer woowu nag gàmmu bokk ci woon gannaaw ba ñu demee nag ne diine balaa leer rek ñu sof ci loolu nga xam ne moom la ñu tuddee gàmmu tey boo taxawee nga ne bidaa la dañuy wax ne dangaa dof la ñuy dal di wax de kii moom dafa dof waaw ndof googu nag ba borom ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne seen ñetti téeméer xërëm yii ak juróom benn fukk benn ci du yàlla te benn ci manul jëriñ te lépp réer la allah dong moo mun a jëriñ loolu la ñi ko teewee woon ci jamono loolu la ñu waxoon ah ajaala al alihata ilahan wahidan inna haada la shay'un ujaab ah yàlla yu bari yii yëpp tey mu ne yii yëpp tekki wuñu dara ah mbir mi doy na waar kon tey boo taxawee nga ne gàmmu bidaa la lu xaraam la kon dañuy taxaw ñu ne yow moom dof nga yow moom sa wax ji moom doy na waar waaye nag gëmuñu dara loolu la ñuy wax ñu ñii moom gëmuñ dara yonent bi sax gëmuñu ko ndaxte gis nga ñu ngi xaraamal gàmmu waaye nañu delluwaat dal di seet ñaay daganal gàmmu di ci daw ak ña koy xaraamal di ko sori waaye ñoom ñaar ñii boo tënkoon seeni dund nga delloo si waa dundinu saxaabatul kiraam ak dundinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan ci moom ngay fekk moo teg tànkam ci dundin booba yonent bi moo mosul gàmm yonent bi mosul xawaare yonent bi mosu koo digle yonent bi mosul delloo kenn ci sant mbaa ci këru baayu kenn mbaa ci këru maamu kenn moom ci boppam delloowul mbir mi ci loxoom abadan delloowu ko ci këram abadan de koo delloo fi ko borom bi subhanahu wa taala delloo woon inna akramakum inda allahi atqaakum ndaxte borom bi subhana wa taala ba mu koy wax mboole seen doomu aadama yi la woowoon yaa ayuha nnaas lañu waxoon ñun ñépp inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jacalnaakum shu'uuban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum inda allahi atqaakum ey mboole seen doomu aadama yi man yàlla maa leen sàkk de ci góor ak jigéen ma def leen ay xeet def leen ay giir ki gën ca yéen ki gëm li tax ma def ay xeet ak ay jiir li ta aarafu ngir ngeen xamante dong la nag waaye ki gën a baax ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla waaye ba ñu demee nag ba léegi foog ñu askane la cib kër sab diine soog a mat ah foofu nag la ñu jàddee almahajjatul bayda xàlluwu leer wi foofu lañ ko jàddee xàlluwoowu xamul kër de xàlluwoowu xamul sant de doomu nuuhu mu nga nale alku mu nga nale dal di alku waaye doomu yonent nag bu alkoo ngir safaano ndigalu yonent ba waaw yow nag ki nga xam ne jote woo moom dara boo safaano ndigalam nag kon alkande romb la de rombagoo alku abadan gis nga nit ki balaa ñuy wax ne romb naa alku keroog ba mu déggee udxuluha bi salaamin aminin keroog lay romb alku duggal aljanna nga dal di dugg keroog la alku romb waaye lu dul loolu rek foo tollu rek yaa ngi ci dëgmal si kon nag li am tegtal mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di tëral ku ko fi bàyyi def leneen yaa ngi ci bidaa noo ko mun a tuddee nag loo mun a wax nag te jamono ngi dem rek ngay gën a xam ne yaa ngi ci bidaa jamono di dem rek ngay gën a yëg ne yaa ngi ci bidaa di gën a ànd ak naqar di gën a itam sori alquranul karim ndaxte aaya bu nekk den ko làmb ngir dooleel la nga ne te du ko mun a dooleel aaya bu ne den ko làmb hadis bu ne den ko jéem a tëgg dal di ko walbati ngir mu dooleel li nga ne te du tax mu doole ku ñëw rek gis benn hadis bu wér fii saxiihi buxaari wala fii saxiihi muslim mu yëg na dëgg-dëgg day ndeke góor gi day xam-xam ba desoon na wala ixlaas ba desoon na ñaar yi foog mu yëg ko mu ñëw ndeke dëgg-dëgg góor gi xam-xam ba desoon na xoolal hadis bii rek ak aaya bu leer bii mu dal di ci teg tànkam imma de koo réeree woon wala réereewu koon waaye sellal baa des kon la koy faj mooy nga d'accord ne góor ga juumoon na yéen ñaanal góor gi dellu ci ci almahajjatil bayda jàmm ji ne dal di jub dal di baax waaye bés bu ne rek nga ne da ngay gën a kii coono rek lay dal di indi te dellu gannaaw lay dal di am ndaxte gis ngeen xam-xam bii day gën a leer de di gën a dem de xam-xam bi day gën a leer rek di gën a dem ñi mooy ci safaan ba seenub sori di gën a leer rek di gën a wéy ndaxte mbir mi ku ko nattoon ñaar fukki at ci gannaaw da nga gis ne soppeeku yu bari dal dina am ndaxte nit ñi gëlëmatuñu ndaxte seen diine ñu ngi ko doon jëlee rek ci gàmmukat yi rek lañ doon jëlee diine faqat keneen dootul am beneen lu dul ci gàmmukat yi kon nag gannaaw ba borom bi subhaanahu wa taala dimbalee xeet wi te li muy dimbalee xeet wi mooy ci ñaari mbir mu ne gis nga diine jii borom bi subhaanahu wa taala dina ko yëkkatee ci góor gu kàccoor kon nag na nga góor-góorlu yow nga yëkkatee diine gi ci mbaax waaye bu ko yëkkatee ci kàccoor nanga ko yëkkatee ci mbaax waaye bu ko yëkkatee ci kàccoor kon ci anam googu lañuy gëm ne yonent bi la mu waxoon moo am boo defee safaan ba itam safaan ba ngay dal di am man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun mu ne bépp jëf boo mun a jëf rek te du maa ko digle mu ne boo demee yàlla dina la ko delloo yàlla amul ci soxla mu dal di ñu waxoon ne iyaakum wa muxdasaatu al umuuri fa inna kulla muxdasatin bidaa kulla bidatin dalaala mu ne maa ngi leen di moytuloo la ñu sos kon gàmmo leen na la ci yooyu ñu sos mu ne na nga yëg ne lépp lu ñu sos bidaa la te bépp bidaa réer la te ñun ñépp d'accord nañu ne li ñuy gis ci gàmmo yi réer du ko romb abadan ay góor ak jigéen yu jaxasoo yuy xawaare di wax ay fitna di def ay musiba ay fitna ki bakka nag lu ne di ci juddoo loolu dëgg dëgg dëgg yëg nañ ne loolu mooy dalaala dëgg nag mooy ab réer ndaxte jafe-jafe bii ak coono gii ak ñàkk alal ñàkk waxtu ñàkk bakkan merloo borom bi subhanahu wa taala ba léegi nga fas yéene ne loolu dafa war a wéy dafa war a am dëgg-dëgg dalaala nag mënu koo romb réer réer moom mënu koo romb dalaala nag mooy réer bu méngoo ak li la wóor ne safaanoo lii moo gën lii nga dal di ci sax rek dem di ko def kon yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala gindi kon mu ne yonent bi nag dal dina génn aduna mu ne ñu fii wa dalilu ala mawtihi sallallahu alayhi wa sallam qawluhu taala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum taxtasimuun mu ne tegtal bii tegtale ne yonent boobu dina génn àdduna mooy waxu borom bi subhanahu wa taala fi mu ko waxoon ne innaka yow mii di muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mayyitun da nga faatu wa innahum ñii ñi la topp ak ñi la bañ a topp mayyituuna ñoom ñépp dinañu faatu tumma topp nag innakum yéen ñépp na ña nangoon ak ña bañoon ak yow mii yawmal qiyaamati bés penc inda rabbikum ci seen kanamu borom taxtasimuuna ngeen di xuloo di weerante naan waxoon naa la ko waxooma ko woon yëgoon nga ko yëgoo ko woon loolu nag la ñuy gis safaanoo gàmmo du dañuy wax ne day teew xel nu mu nangoo almayitu yaxdur ku faatu teew nil rek reer ba sur jog naan raaytu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqazatan laa manaaman yaa axi xam nañu lii fola lii caaxaan la borom bi wax ne dangay dee mu dal di faatu umar ibnul xataab dal di taxaw naan ku ne faatu na rek ma yóbbu la àllaaxira kii du faatu mukk abu bakrin radiallahu anhu ak ndëgër laayam dal di jóg taxaw ne leen déglu leen man kaana yabudu llah falyabudi llah inna allaha xayyun laa yamut man kaana yabudu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam falyantahi fa inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam qad maat kon leen ku doon jaamu yàlla góorgóorlul de yàlla ku dund la du fi jóge mukk waaye képp koo xam ne yonent bi nga doon jaamu wala moo taxoon ngay jaamu bés ni ki tey bàyyil dee na ñu dal di ko jullee dal di ko sang dal di gas sulku yow nga taxaw nga ne gis naa ko ah yaa axi nañu settantalaat bu baax a baax léeg-léeg wax yu ñuy wax ak pas-pas yi ñuy fas rek day safaanoo quraan quraan ne dangay faatu faatu nga yow nit ñëw taxaw mu ne la mu ngi fi lu ne la ñuy dégg ci gàmmu yonent bi ñëw na day ñëw loolu dañ koy dégg ah wala nit jog naan gis naa ko wax na ma nangam ak nangam te ba ma koy gis nelewuma damaa yeewu dal di ko gis mooy seeni pas-pas kon loolu mbokk yi nañ ci bàyyi xel de moo tax nag borom bi subhanahu wa taala mu ne da ngeen di xuloo nag kanamam ngeen di xuloo kanamam foo ko gisoon foo ma gisoon lu ma la waxoon moo tax ci salafu saaleh nga xam ne ñoom dëgg-dëgg dañuy déggoon jàngaleeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaar fukki fan ak juróom ñeent muy séentu bu njëkk ñuy séentu weer ngir woor benn waay dal di ñëw ne leen bàyyi leen li ngeen di séentu man bi gént naa yonent bi mu ne ma suba koor la na ngeen woor kon jarul ngeen koy séentu suba moom weeru koor la jaru ko ñu dal di ko xool ñu ne ko yaa haada alladi tazaamu annaka ra'aytahu fi lmanaami qad ra'aynaahu yaqazatan fa qaala lanaa suumuu li ru'yatihi waftiruu li ru'yatihi fa in gumma alaykum fa akmilu liddata thalaathine nahnu ala dhalik mu ne ko e yow waa ji ki nga yaakaar ne gént nga ko waaye ñun dund nañoo moom ŋaas ñu koy gis mu ne ñu aa séentu leen weer wi su ngeen ko gisee woor leen su ngeen ko gisee wori leen su ngeen ko gisul ngir lëndëm mottali leen lim bi fanweer mu ne ñun kat ca wax jooja la ñuy wéy kat ndaxte dañu dundoon nag ñoom mu wax ñu de ñun ñu ngi wéy ca loola waaye yow nag mu dund dal di wax toog ba faatu léeg-léeg ay junniy at yow nga ñëw nga ne gis nga ko waxal na la safaanoo la mu waxoon ba muy dund ah mbokk yi loolu war nañ ko seetaat de nañu ko seetantal bolaa li aaya bi di wax bolaa ñuy xuloo ak moom de bu dul moom dañuy xuloo de loolu moo tax bu ñu wolee buftu bi da nga gis koo xam ne day dal di jóg li muy njëkk a jooy ak li muy njëkk a xelaat yaa laytani ittaxastu ma ar rasuli sabila aka yelloon ma jaar yoonu yonent bi te yoonu yonent bi gàmmu nekku ca de déedéet manhaju nabi sallallahu alayhi wasallam manhaju salafu saaleh gàmmu amu ca kooku du yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam abadan kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax looloo tax muallif bi mu ne ñu wannaasu ida maatu yubathuun mu ne nag da ngay gëm ne nag ku faatu rek dinañ la dekkal ndaxte buñ la dekkalul xuloo bii du mun a am te borom bi subhanahu wa taala mu ne fokk xuloo bi day am mu ne dalilu dekkal boobu nag mooy waxu borom bi subhanahu wa taala minha xalaqnaakum wa fiiha nu'iidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra mu ne na ngeen yëg ne minha ci suuf siiday laa leen sàkkee waaye fiiha ci suuf siiday laa leen di delloo wa minha ci suuf siiday nuxrijukum laa leen di génnee beneen yoon mooy bu ñu wolee buftu bi kon yal nañu borom bi subhanahu wa taala baaxee ñu topp yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu borom bi subhanahu wa taala baaxee ñu ràññale bidaa ak sunna mu baaxee ñu dal di dundal sunna dal di rey bidaa allahumma arina alxaqa xaqan wa arzuqna husna ittibaa wa arina albatila batilan wa arzuqna husna ijtinaba wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mbokk jullit yi ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala ki ñu baaxee ci xiwal yu mag yi di ñu dajale benn ci néegam ñuy nafar suñuy pas-pas am ñeneen ñu mu seetaan ci coobareem ñu nekk ca leneen kon ñu ngi ko ciy sant kon ñu ngi woon ci buntu xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak diine ji nga xam ne jox nañ ko ko ba mu daldi mat borom bi subhaanahu wa taala ne mat na mottali naa xiwal bi te bég naa ñu jaamoo ma ni te fi ñu taxawoon keroog mooy leeral ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama doomu aadama la dina fi joge ni fi doomu aadama yi di joge te loolu borom bi subhaanahu wa taala def na ko joge na fi waaye la mu indi woon moom fii lay def bébés pénc ndaxte ci la ñuy àttee jaam yi bu dee qur'anul karim borom bi subhanahu wa taala assuré na ko ne du soppeeku du sàppi bu dee sunna duggaale na ci biir ngir ñoom ñaar lañuy tuddee wahyu te moom la borom bi subhanahu wa taala dal di sàmm mu peegal ñu borom xam-xam yu sell mu tette leen ba ñu seggal ñu li sell te wér ak safaan ba ñu def ko ay téere mu nekk lu ñu xam ba wax joo nettali ñu won la ne bu wér la wala bu wérul la amma suñu darsu tey day tàmbalee ne doomu aadama yi ku fi ñëw itam dañ fi jóge te jóge boobu bu amee ab bés dina ñëw ñu daldi dajale ñépp ngir ku nekk delloo boromam àqam nga daldi jël sa àq ñu seet la nga am ci yiw ndax man nañ ci sukkandiku nga bokk ca ña texe am déet bés boobu ñu koy tuddee bés pénc mbaa bésub dekki ba te am ñoo xam ne weddi nañu ko ci seeni alhamdulillah yaxfirullah am ñoo xam ne weddi nañu ko ci seen làmmeñ am ñu ko weddi ci seeni jëf moo tax mu allif bi rahimahullah mu ne ñu wannaasu ida maatuu yub'asuun waddalil qawluhu taala منها خلقناكم وفيها نؤيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لطه من نيت ني داي بو نيو فاتو دينا نيو لين ديكال من واخ جوجو نك امنا تكتال سي واخو بوروم بي سبحانه وتعالى im ñu waxoon ne ci moom laa leen sàkkee damir bi di dellu ci al ard maanaa ci suuf si laa leen sàkkee te wa fiiha ci suuf si nu iidukum laa leen di delloo gannaaw ba ngeen faatoo wa minha ci suuf si nuxrijukum taaratan uxra laa leen di génnewaat beneen yoon yoon bu njëkk ba mooy sàkk bi yoonu ñaareel mooy dekkal génnee ci yoonu ñaareel boobu nag bi nga xam ne ci la doomu aadama dal di soxwe ko loolu nag dafa am lu ko sabab ak lu ko waral maanaa jaam bi ba mu ñëwee ci kaw suuf borom bi subhaanahu wa taala da ko joxoon namu war a dundee mu ngi mel ni da ko sàkk ba pare mu boole ko benn notice ne ko demal nag lii nga war a wax lii nga war a def lii nga war a lekk lii nga war a bëgg lii nga war a bañ lii nga war a fas lii nga war a weddi nii nga war a jaamoo kii nga war a gëm kii nga war a roy kon loolu ba ko borom bi subhanahu wa taala defee boole ko itam ay malaaka yuy sàmm loolu di ko settantal te dara du romb lu ne dinañ ko bind wa inna alaykum la haafizina kiraman katibin kon su fekkee ne am nañu leen wëttu di bind kon dekki boobu nag loolu mooy sabab ba ñu jël notice boobu nga xam ne mooy alquranul karim ak la malaaka yooyu bindoon mu nekk lu leer muy téere boo xam ne mu ngi ci sa loxo kullu insanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqi la borom bi subhanahu wa taala wax ku nekk rek sa téere jëf ñu ngi ko lonk ci sa baat waaye yawma alqiyaama nag nuxriju lahu kitaaban yalqahu mansuura iqra kitaabaka wa kafa bi nafsika alyawma alayka xasiba keroog nag ñu jox ko téere jëf yooyu borom bi subhanahu wa taala ci lawxul mahfuz mu ngi yore notice bi mooy alquranul karim léegi mu ne yow nag doy na la tey nga atte sa bopp la nekk ca notice boobu di alquranul karim ak li nekk ci sa téere jëf bu fekkee moo méngoo kookoy ki texe te kooku mooy ki nangoo téere jëfam ci loxo ndey jooram fa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa yaqulu haa umuqra'u kitaabiya إلى آخر الآية وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا mu ne képp koo xam ne téere jëfam daal jox nañ ko mu nangoo ko ndey joor day dal di bég mu ne waay day saan jàll na xool leen sama téere jëf méngoo na ak lañ ma joxoon man day jàll na man day mucc na beneen aaya mu ne ku ñu jox sa téere jëf ci sa loxo ndey joor fokk ñu yombalal la sab àtte nangam de yaa ko defoon jéggal naa la ya xam kam ah nangam de bàyyi woon nga ko jéggal naa la kon fokk rek àtte ba nekk bu yomb moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu man nuuqisha alxisaaba uddiba képp ku borom bi subhanahu wa taala xaccu yow ba mu lay àtte la mu namm ci yow muy bugal kon yal nañu yombalal suñu àtte safaan ba nag mooy وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية أما سفان بنك كنيو كو جوخ تي لوخوب تاموñ koku moy ki texé wadi moy wax ne aka yellon téré bi joxuñu ma ko ndax xawma luñ ma nara atté xam na kay lu tax muy jooy xam na luñ ko nara atté mu ne aka yelloon mu yem fii fekk jeex na dañuy wax ne kuunu turaaban moo tax keroog yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne xar ma amul béjjén ca aduna mbëkk xar ba amul béjjén ca aduna ñu dekkal leen ñoom ñaar ba amuloon béjjén ñu defal ko béjjén ñu ne ko fayul dafa jëlal sa àq ba mu fayoo borom bi subhanahu wa taala ne leen nekkaat leen suuf ndaxte togguñu waleen noon jëf yéeféer dégg loolu nag mu naan moom itam yaa laytani kuntu turaaba aka yelloon man itam ñu ne nekkal suuf moo tax kale ne yaa laytaha kaanat alqaadiya aka yelloon mu yem fii rek du jàll feneen waaye nag du fa yem beneen bi itam borom bi subhanahu wa taala ne ñu wa amma man uutiya kitaabahu waraa zahri fa sawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira innahu kaana fi ahlihi masruura إنه ظن أن لن يهور بلى إن ربه كان به بصيرا mu ne ku ñu joxee téere jëfam nag ci loxob càmmooñam ñu jaarale ko ca gannaaw ga bi maanaa bënn loxo bi ca gannaaw ga mu jël téere ba mu ne hee kooku day na jooy na woo toskareem na woo ay bàkkaaram yu bari ndaxte da doon bégee rek ci njobootam ah dañuy wax rek ah yàlla day am na keneen ku mu lakk ku dul doomu ah ñii dañuy wax rek yàlla waxul kenn dara mu nekk ci loolu rek muy mébét rek borom bi subhanahu wa taala ne kooku la ñuy sànni ci safara yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala musal kon dekki boobu mbir mu am solo la doomu aadama de koo war a yittewoo bu baax a baax ci beneen aaya borom bi subhanahu wa taala ne ñu fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuun mu ne ci suuf sii ngeen di dund fii mooy dund doomu aadama ku fi jóge dootoo mun a dund ba dellu si fii mu ne itam te fii ngeen di faatoo te ci suuf sii laa leen di génneewaate ngir dal di leen atte kon yal nañu atte ci yombal ci beneen aaya buy gën a fésal atte boobu ak dekki boobu borom bi subhanahu wa taala di ñu wax ne wallahu ambatakum min al ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja suratu nuh borom bi ne man dey maa leen saxal ci suuf ni ay gàncax bi maana maa leen sàkk amal leen te seenu cosaan nekk suuf mu ne itam ci suuf soosu laa leen di delloo ci laa leen di génneewaatee ngir atte leen kon nag la ca gannaaw atte doomu aadama de ko war a yittewoo immal janna wa imma naar imma rek borom bokk ca ñay texe dugg aljanna walla safaan ba yal nañu umb moom mu allif bi rahimahullah mu ne ñu wa ba'da al ba'si muhaasabuun mu ne nañu gëm nag gannaaw dekki ba nag yegg nañ nag ci dëgg-dëgg la ñuy tuddee dëgg mu ne heure boobu ku nekk dañ koy atte atte nag mooy itaau kulli zi xaqin xaqa ku nekk la mu yeeyoo woon rek borom bi subhana wa taala mu ne dinaa la ko jox te dinaa la ko jox mu melalal doomu aadama ñetti melo yu doomu aadama di xeeb mooy zarra fatilan naqiira yii yépp mu nekk lu xeebu zarra mooy pepp boo xam ne bët xawu koo mën a gis wa man ya'mal misqaala zarratin xayran yara wa man ya'mal misqaala zarratin charran yara képp ku jëf lu tollu ni misqaal boobu cib yiw da nga dajeeg moom ëllëg bu dee safaan ba itam da nga dajeeg moom ëllëg fatilan borom bi subhanahu wa taala mu ne doomu aadama yi lépp lu ñu liggéey dinañ dajeeg moom de wala yuzlamuuna fatila du ñu leen tooñ lu tolloog fatil mooy boo xollee tàndarma mbuus su weex soosu nga xam ne mooy ëmb xoox bi mu ne kenn du leen tooñ lu toll noonu mu ne ñeneen ñi ngay jaamu te duñu yàlla nga yaakaar ci ñoom di leen woo di muslu ci ñoom bés penc munuñ laa jëriñ naqiira mooy xooxub tàndarma boo ko walbatee am na benn wàll goo xam ne am na ab nuux nuux ci biir day am benn wuñ bu sew bu weex buy tëdd ci nuux nuux boobu ànd ak xoox bi mu ne munuñ laa jëriñ lu toll noonu te munuñ laa xañe lu toll noonu mooy ñett yu doomu aadama jàpp ne lu xeebu la maanaa njëriñ nekku ci mu ne lu tollu noonu itam nag kenn du la ko tooñ waaye kenn mënulaa yokkal itam lu tollu noonu kon gannaaw doomu aadama bi dafa war a yitte woo ne dañ koy atte kon xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu kon loolu nit day xër ci atte boppam balaa ñu koy atte bu xëyee be ngoon dellu ci lalam daldi ngegenoo ndey jooram xamul ndax dina yeewu aka yelloon mu xisaab boppam mu ne waaw man ba ma xëyee ba léegi ci jamono lu ma def ngir yàlla mu teg waaw man itam lu ma def ci safaan mu teg mu tuub rëccu safaan ba daldi xeeb yiw ba ngir ëllëg bu xëyee def lu ko ëpp waaye leneen la le moom mu bañ ci jaaraat itlaaqan kon yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax la tuuti la la rëy la la feeñ la nëbbu amul lenn lu làqu borom kon boole seen jëf dina dajeeg moom lu dul jëf ba mu tuuboon muy lu ñaaw rëccu ko sartuy tuub daje ci borom bi subhanahu wa taala ne malaaka yi loolu bokk na ca la ñu jéggale loolu day du ko gis bés pénc ak yiw ba mu defoon te sellalu loon bëggoon na ku ko nettali wala ku ko tagg loolu itam day du daje moom bis pénc ndaxte waxoon nañ ko ca aduna ak itam yiw ba mu defoon mu jàpp ne yiw la waaye ci anamu bid ala ko defee woon donte sonn na ci borom bi subhanahu wa taala mu ne loolu itam du bokk ak la muy dajel ëllëg kon yooyu dañ koy neenal ak yiw boo xam ne def nga ko rafetal ko sellal ko baaxal ko roy ko ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bind ko gannaaw ba nga defee yiw boobu dal di def ab bokkaale yiw boobu itam dañ koy far nga delluwaat zéro kon yii doomu aadama da koy yittewoo moo taxoon borom bi subhanahu wa taala ne ñu wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansura dem naa daal ca la ñu jëfoon cib jëf kon nag mooy yiw bu ñu nangu woon mu ne ma dal di ko neenal ndaxte dañoo bokkaale borom bi joxoñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ko wa laqad uuhiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wa la takunanna min alxaasirin mu ne ko wax yu naa jëme ci yow jëme ñi la fi jiitu woon céey boo bokkaale dinaa mabb sa jëf nga bokk ca ñañu neenal ëllëg nga perte bu ñu joxoñee yonent bi wax ko loolu kon xeetam wi lañ ci jublu kon ñett yooyu nañ ko moytu jëfub yiw ci anamu bidaa mbaa bañ a sellal yiw boobu neen na jëfub yiw gannaaw nga def ab bokkaale yiw boobu neen na kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax jëfub safaan bañ koo tuub loolu itam def fay des mu nekk ab fitna kon jaam bi buy xelaat ne dañ koy xisaab rek dina yittewoo yiw bu dëppoo ak tegtal mu royee ko ca yonent ba dal di sellal ndaxte loolu dong la fay fekk waaye dina néewal nag ay ñaawteefam néewal ko lool te bari lu muy tuub ci dalil loolu ne gannaaw dekki dinañu xisaab jaam bi mooy dinañu ko atte te dinañu ko fay li méngoog jëfam borom bi subhanahu wa taala wax ñu ne li tax ma def loolu li yajziya alladina asaa'uu bima amiluu wa yajziya alladina axsanuu bilxusna suratu najm borom bi ne loolu defewuma ko dara lu dul naa fay ña nga xam ne ñaawaloon nañu defoon nañ lu ñaaw ci seeni jëf ngir ma fay leen borom bi jiital ñi def lu ñaaw seeni jëf ndaxte aksaruhum mooy ñi ëpp ñi ëpp mooy ñiy def lu ñaaw moo tax mu jiital leen fii mu ne ngir ma fay ñaay def lu ñaaw ci seeni jëf ma fay itam ñaay rafetal lu rafet al jazaau l ixsaan illa al ixsaan ndax de lu dul lu rafet lan moo koy fay lu rafet lu mel ni moom olof yi ñooy léeb ñu naan gàtt geen gàtt geen a koy fay kon nag wa kazalika def lu ñaaw def lu ñaaw a koy fay waaye def lu rafet itam nag def lu rafet moo koy dal di fay kon jaam bi dafa war a yittewoo dëgg-dëgg tey fi ma tollu nii bu ma fi joge woon ñi ma bàyyi fii lu ñuy netti li sama gannaaw lu am solo ngi noonu ñaareel bi lan laa fay fekk ci jëf ju rafet nit bu koy xelaat rek dina xër di def lu rafet ndaxte xamoo kaña taswiif mooy alak doomu aadama mooy denaa denaa denaa denaa loolu day tax nga yiixal tuub day tax nga yiixal jëfub yiw nga jàpp ne yaa ngi fi demagoo te allahu aalamu kaña muallif bi rahimahullah mu ne ñu wa man kaddaba bilbaasi kafara mu ne nañu bokk yëg ne képp ku weddi ne dee dekki am na mu ne kooku yéeféer la jeex na moo xam mu ngi julli di woor di asaka xalaas yéeféer la te ñu yëg ne nag nit ki dina ko weddee bi lisaanil xaal ci ay jëfam ndaxte boo jëfee jëf yuy wone ne yaakaaroo dañ lay xisaab loolu weddi xisaab la nga xam ne lu bon rek ci nga ne lu xaraam rek ngay dundee te jaamu yàlla moom doo ko jege fenn te ki ngay néewal di ko xeeb mooy ki xër di jaamu yàlla ki xër ne day roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay melo bitéem ak i melo biiram ay melo bitéem yar sikkiñ dagg ay naanu lelli ay we gàttal ay yére fonk soccu teewe ay julli ku sàggan nga dal di ko laayee biir loolu lenn la ci ay melo yi biti yoo xam ne mooy melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am melo yi biir yéene ñépp lu baax yërëm ñépp di ñaanal ñépp te di jokk ñépp te di dimbali ñépp yemale doomu aadama yi doo xeeb kenn waaye sa bopp ngay xeeb ci kanamu doomu aadama yi loolu lenn la ci ay melo yi biir kon yooyu bu dajee rek ci doomu aadama bi dina ko dimbale mu gëm ne dee dekki am na ciy jëfam ak ci làmmeñam maanaa waxam ak ci pas-pasam ku ko weddi yéeféer la muallif bi ne am na dalil nekkul wax moom borom bi subhanahu wa taala moo ñu wax ne zaama alladina kafaru an lan yubasu qul bala wa rabbi latubasunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala allahi yasir ci suratu taghabun borom bi subhana taala mu ne zaama yaakaar na foog na alladina ña nga xam ne kafaru weddi nañu allan yubasu kenn du leen dekkal ñoom yaakaar ne ku dee rek jeex na ñoom yaakaar na daal dund bi yépp mooy aduna bii rek ku fi ñàkk-ñàkk nga ku fi am am nga kon ku dee rek jeex na borom bi ne yonent bi qul wax leen ne balaa ahan kay bañ a dekkal wa rabbi te maa ngi koy gëñ borom bi ne yonent bi qul wax leen ne balaa ahankay bañ a dekkal wa rabbi te maa ngi koy gëñ ci sama borom la tuba asunna fokk ñu dekkal leen summa gannaaw dekkal ga nag latu nabba unna ñu xabaare leen bi meen bi ma amiltum la ngeen jëfoon ca aduna wa dalika loolu dekkal la xabaare la la nga jëf ca aduna alallahi ci yàlla yasiir lu yomb la kun rek fayakun jëmm ja dal di taxaw malaaka yi dal di indi téere jëf ya alquran moom mu ngi fi jóge wu fi te du fi jóge borom bi subhanahu wa taala ne la nag aa dundoon nga nag de yaa ngi nii nag lama la waxoon foo ci tollu la samab ndigal loo ca def samab tere lu taxoon bàyyi woo ko aa xanaa li nga fay wax de jéema làmb génnuwaay borom bi subhanahu wa taala ne amul jotu amul jéggal amul ndaxte yónnee woon naa ci yow ma won la lu leer ma may la déggukaay ak gisukaay ak waxukaay ak xamukaay ak takkukaay waaye loolu yépp nga bañ koo jëfandikoo qul huwa alladi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absaara wal af'idata qalilan ma tashkurun borom bi subhanahu wa taala mu ne ah man maa la sàkk de defal la li ngay déggee defal la li ngay xamee di ko ràññee di ko gisee ak xol bi nga koy takkee waaye nag néew na loo may sant bi maanaa li taxoon ma jox la loolu utilisé woo ko kon nag dekki boobu lu yomb la ci kanamu borom bi subhanahu wa taala kon loolu moo tax jaam bi na ko bàyyi ci xelam ci weddi lii nga xam ne mooy dekki da koy yóbbee mu nekk yéefir da koy yóbbee jëf ja muy jëf duñ ko nangu jëf ja ngay jëf itam dang ciy war a bàyyi xel bu baax a baax mu wóor la ne loo jëf rek danga dajeeg moom de du rëcc abadan moo taxoon borom bi subhaanahu wa taala mu ne ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jànge alquran xamle nen ne dee dekki dina ñëw ñu dal di xaqataay ne ah toog leen rek di ko xaar hayhaata hayhaata lima tu'aduun aka sori aka sori ah dañuy wax rek ñeneen ñi nga xam ne jege nañu am nañu asi ngëm wala ñu ngi xeeñtu dëgg ñu xër lool ci buntu boobu di ko laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi ne ñu wa yastambi'uunaka ahaqun hu qul ii wa rabbi innahu la haqun wa ma antum bi mu'jizin borom bi subhanahu wa taala mu ne wa yastambi'uunak ñu ngi laay laaj rek bu ñu ñëwee ñu ne la waaw dee dekki boobu ngay wax ahaqun hu ndax loolu moom dëgg la ndax dina am borom bi ne yonent bi wax leen qul ii wa rabbi kul wax leen ne waawaaw maa ngi koy gën ci sama borom innahu naka dekki boobu la xaqun dëgg la boo xam ne day ñëw te bu ñëwee day wa ma antum bi mu'jizin du ngeen mun a rëcc de du ngeen mun a raw de du ngeen mun a làqu de kon loolu mu ngi ci suratu yunus kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mu nettaliwaat ñu ci suratu saba mu ne ñu wa qaala alladina kafaruu laa taatiina alsaa qul bala wa rabbi la taatiyannakum dañuy gis fii yépp fu mu ne ahankaay rek dina gén ci borom bi mu ne yéeféer ya ne ah dañuy wax rek bés penc du ñëw lii promesse religieuse dong la ngir ñu mun a dund fii ngir ñu mun a def nangam waaye ay naxe la borom bi ne yonent bi wax leen ne uhan kay dina ñëw de fokk mu dal di ñëw ngeen dal di jàkkaarloo ak moom bu ngeen jàkkaarloo ak moom nag la cay desati mooy jëf borom bi ne keroog nag wa nada'u almawaazina alqista li yawmi alqiyaamati fala tuzlamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا يسيرا kon borom bi subhanahu wa taala mu ne walla wa kafa bina haasibin wa kafa bina haasibin kon borom bi subhanahu wa taala ne ñu keroog nag wa nada'u dinañu tëral al mawazina ay balance alqista yu sensible yoo xam ne loo ci teg rek mu génne la quantité bi mu génne la poids bi mu yore mu ne keroog bés pénc keroog nag duñu tooñ benn bakkan dara bu jëfee lu tolloog pepp rek pepp bi gën a tuuti di xardal dinañ ko indi peeseel ko ko ndaxte borom bi subhaanahu wa taala moo raw ci comptabiliser ay mbir wa kafa bina haasibin mu ne man maa raw ci comptabiliser ay mbir lu mu tuuti tuuti rek ma ne la mu ngi moo xam yiw la itam moo xam safaan ba la ñuy gën a fedd li loolu mooy xadiisul bitaaqa xadiis bi ñuy tuddee xadiisub carte ndaxte dañu indi ab jaam ñaawte fam bari lool ñu sotti sotti ba mu fees mu bari lool waaye nag borom bi subhanahu wa taala namm na ci moom yërmande mu ne malaaka yi waaw sama jaam bii moom te ngeen làmbal ko mbaa desewul ab yiw walla boog desewul dara ñu ne ñu làmbaat ñu daldi làmb ñu ne borom bi ñu ñun day gisuñu dara dara dara dara lu dul asi carte sii kayit sii daal ñu bind ci laa ilaha illa allahu xaalisan li wajhillah mu ne ah gis nañ asi kayit de ñu ngi ci bind ne tuddoon na sa tur fekk de koo sellaloon ngir ragal la ak xemem li nekk ci yow ak tiit sa mbugal te ab sellal la ko waxee woon mu ne waaw peese leen man sama jaam duñ ko tooñ de jaam ba ne waaw asi kayit sii lu muy jëriñ ci bàkkaar bu bari bii man kay torox naa mu ne peese leen rek ñu dal di teg kayit sa rek mu dal di yëkkati mboole seen bàkkaar ba ñu tegoon ca balance ba mu gën koo diis ñu ne ko yow daal àtte nañ la ci yërmande texe nga kon foofu lañ fay déggee mooy jaam bi duñ ko dencal dara waaye itam nag dinañ fa déggee màggaay ak teraangaab ak diis ak laa ilaha illa allah boo xam ne dañ koo wax mu dal di sell yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala may ñu sellal ko muallif bi nañu wa arsala allahu jamia rusuli mubashirina wa mundirin mu ne nañu yëg ne borom bi subhanahu wa taala yónni na mboole seen yonent yi mboole seen yonent yi awaluhum nuuhu alayhi salaam wa axiruhum muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mboole seen de leen yónni ngir ñuy bégalaate di xuppaate ka ca njëkk mooy nuuh dañuy tuddee nuuhu moo njëkk nag ndaxte moo njëkk a tere bokkaale waaye awalu man ursila hu adam alayhi salaam ndaxte moom la ñu njëkk a sàkk mu nekk yonentub xeetam waaye gannaaw nag nit ñi dañ leen sàkkoon ci fitra woowu leen ci dara noonu la ñu meloon waaye da leen doon gën a leeralal ak jox leen ak ndëgërlaay waaye ba ñu demee nag ba ab kéeféer ak bokkaale dal di fés nuuhu alayhi salaam nag ñu yónni ko ngir nag mu leeralaatal pas-pas bii mu bokk ci ulul azmi moo tax ñu ne awalu man ursila mooy ki ñu njëkk a yónni maanaa ngir leeral bokkaale dal di ko dàq ndaxte am na ay nit ñu bàyyi jaamu borom bi subhanahu wa taala ñuy jaamu ay xërëm te xërëm yooyu nekkoon na nit ñu baax waaye ñu def ko ay xërëm ci pexeb seytaane ba mu yóbbee leen ñu leen di jaamu ndax ña xamoon sabab ba amaan nañu moytu waaye ña réeree sabab ba ci la ñuy toll aduna nag dem na be tolluwaat walla boog be raw fa jamono toll woon ci ahadu nuu ndax léegi da ngay gis doomu aadama boo xam ne dina romb ci jaamu nit waaye photo nit ka day ànd ak moom fu mu mun a ne fu mu mun a ne rek photo baa ngi ànd ak moom mu dal di ko taf yaakaar ne photo dina jëriñ walla yaakaar ne photo dina jañ leneen xanaa yëgul ne loolu mun na koo yóbbee ba bu jullee dootuñ ko nangu bu saraxee dootuñ ko nangu bu ajee dootuñ ko nangu bu wooree dootuñ ko nangu fekkee ne pas-pasam boobu de koo aj ci photo boobu nga xam ne mu ngi ko takk ci yaramam te bu ko ci ajul nag laa faidata li taaliqihi bu fekkee nag dafa wax ne ah dama ko fii def rek waaye du dara kooku moo xel nangu ko kon loolu jëfu dof la kon loo takk ci sa yaram rek am na sabab bu tax mu ne fa kon sabab boobu nag bu jëmee ci wàllu pas-pas na nga xam ne toroxtaande day dal dina ñëw kon kañu mujj yónni mooy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam keneen ku woote woo ne waxyu nañu ko gannaaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam faqad kafara ku ko gëm itam kafara mislahu te wa man shakka fi kufri haulaai kafara muy ñett ñuy génn ci diine ku taxaw ne waxyu nañu ma gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weddina génn na ci islaam ka gëm ne la mu wax dëgg na waax yu nañu ko kooku it génn na ci islaam kaay sikki sàkka ñii ay yéeféer lañ wala duñu ay yéeféer faqat kafara ndaxte weddina qur'an borom bi subhana wa taala lu leer la wax atmamtu mottali naa jeex na keneen dootul ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñu laa nabiya ba'di amul keneen ku ñuy wax yu sama gannaaw jeex na waaye nag waxoon nañu ne de ah sama gannaaw day dina feeñ de kazabuuna thalaathuun kullun yadda in nubuwata wala nabiya baadi mu ne fanweeri fenkat dinañ fi jaar nekkul tënk nag fanweer dong la waaye min baabin misaal ci buntum misaal mu ne fanweeri fenkat dinañ fi jaar ku nekk naan yonent laa wax yu nañu ma wax yu nañu ma waaye mu ne dañuy fen de sama gannaaw yonent dootul ñëw kon loolu itam ñu bàyyi ci xel bu baax a baax képp ku woote woob yonent boo ko mayoon soxna nangu ko faqat kafara ah yéeféer la di jeex na ndax jullit moom yéeféer du ko denc jeex na dana fekk kafara lu mu mun a del daal kafara yustataabu fekkoon ne islaam mooy atte dañ koy wax ne dellu sil bu nangoo tuub dellu si fa lillahi alhamdu wa illa qutila loolu nag ñu dal di ko faat kon loolu dañ koy gëm ngëm bu fés muallif bi nag ne waxuma de ci waxu borom bi subhanahu wa taala la borom bi moo ñu wax ne rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnaasi ala allahi hujjatun bada rusul ci suratu nisa mu ne rusulan ay yonent mubashirina dañuy bégalaate ña gëm wa mundirina dañuy xupp ñi sàggan lu tax li alla yakuna linnaas ndax nit ñi bañ a am alallahi ca yàlla hujjatan lay bada rusuli bu yónnewu loon kenn bu yónniwu doon kenn keroog bés penc bu waxee ñu ah yàlla yow itam dañu waroon da nga waroon yónnee nag ñun xamuñoon loolu de bu yonentu ñëwoon kay xam nga duñu def loolu mu ne aha ngir dàq lay boobu nag moo tax yonentu yooyu yépp jaar nañ fi te amul benn xeet lu dul rek borom bi subhaanahu wa taala ne yónni naa ci ñoom ak yonent amul benn xeet nag amul benn xeet wa ma min ummatin illa xalaa fiha nadir amul benn xeet rek lu dul ab yonent wéet naag ñoom amaan na nag xam nañu ko wala xamuñu ko ndaxte borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi de ko wax ne am na ñu ma la nettilil waaye am na ñu ma la nettililul de am na ñoo xam ne noppi naa ca ñoom rek waaye nag ñaar fukk ak juróom moom seen tur rot si na ci qur'aanul karim waaye am na ñeneen ñu bari lool lool ñoo xam ne nettiwuñu leen te ñun xamuñu leen waaye xeet wu ne moom yonent ñëwoon na fa kon yonent yooyu nag ngir dàqal borom bi subhaanahu wa taala lay gannaaw moom borom bi ku dëñ kumpa la lii ñëw ëllëg xam na ko la weesu xam na ko lañu tollu tey gën a leerati ci moom moo tax moom borom bi subhaanahu wa taala mu ne ñu wa huwa alladi yabda'u alxalqa summa yu'iiduhu wa huwa ahwanu alay mu ne na ngeen yëg ne ah borom bi day moo sos lépp lu ñu sàkk te gannaaw ba mu faatoo da koy delloowaat te looloo gën a yombati créé ba pare loolu nga créé woon am lu ci yàqu ngir nga réparé ko mu ne ah looloo gën a yomb nag moom borom bi subhanahu wa taala mu ne moo sàkk dal di faat kon bu dara desatul lu dul delloo mu ne loolu moo gën a yombati kon gannaaw ba ñu gëmee ne yonentu yooyu la tax ñu ñëw ñooy dàqal borom bi subhanahu wa taala lay kon nañu gaaw mooy ci qur'an di ñaan yonent di ñaan borom bi subhanahu wa taala ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon defee allahumma la taj'al hadha alqur'ana hujjatan alayna waj'alhu hujjatan lana ey borom bi subhanahu wa taala qur'an bii bu ko def mu nekk sa lay ngir nga bugal ñu waaye defalal ñu qur'an bi nekk suñu lay ngir nga jéggal ñu ndaxte lépp lu qur'an joxoñ ñu dal di ko def kon moom mu allif bi mu ne ka njëkk ca ñoom mooy nuuhu alayhi salaam ki mujj ci ñoom mooy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kon loolu ñu bàyyi ci xel am na ñuy junju ñu naan kaana baynahu wa bayna aadam yaani bayna nuuh وبين آدم عليه السلام عشرة قرون كلهم على الإسلام فلما هدش الشرك بسبب الغلو في الصالحين أرسل إليهم وهو أول رسول إلى أهل الأرض بإجماع المسلمين من ديغانتي نوح عليه السلام أك آدم عليه السلام نكنا دي سيكل dix siècle kon muy junni at junni at yooyu yépp nag nit ñaa ngi ci pas-pas bu leer di jaamu borom bi subhaanahu wa taala waaye gannaaw dix siècle yooyu nag shirk dal di am te la indi woon shirk bi mooy xaabaabal ci ñu baax ñi ah mbaa jamono jaa ngi bugg a niroo de xaabaabal ci ñu baax ñi ndeke mbir moomu jaaroon na fi ba borom bi subhanahu wa taala yëkkati lu tolloog yonant muy nuuhu alayhi salaam mu boole ko ci ulul azmi kon bu ñu demee ba loolu ñëwati ah kon xadis bi dañ koy mën a dégg nag bada al islaamu gariban wa sa yauudu gariban kama badaa fa tuuba lil guraba diine ji tumaranke woon na te dina dellu si waat tumaranke kon ña tumaranke ànd ak diine day ñoom texe nañu kon yàlla kon yal nañu borom bi subhanahu wa taala boole ci tumaranke googu kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ci anam yooyu bu fekkee ne la leen yóbbee woon ci alkande mooy alxuluwu fi saalihin xaabaabal ci ñu baax ñi di géñee ci seen tur di barkelu ci seeni bàmmeel boo tuddee sax yal nañu yàlla taas ci seeni barke waaw kan moo la wax ne am nañu barke ah loolu lu ñuy war a seet na est ce que d'accord nga ne nangu nañu seeni jëf ndaxte li ñuy am ci pouvoir yépp nag àggaguñu firawna ak haamaan ak qaaruun te ñooñu ay kàccoor la ñu woon waaye àggaguñu seen pouvoir abadan kon la gën la borom ba subhanahu wa taala tëraloon ñaan borom bi subhanahu wa taala jéggal ñu wali ixwanina alladina sabaquuna jéggal ñu nga jéggalaale suñu mbokk ya ñu jiitu woon kon ñooñu la baax ca ñoom mooy ñaanal leen jéggal ñaanal leen jéggal amma bu desee ngëñ nag na nga dem ca borom ba subhanahu wa taala bu desee barkelu nag na nga jëm ca borom ba subhanahu wa taala seeni bàmmeel amatul njëriñ lu dul nga dem fa fàttaliku dee xelaat ne kii day maag mooma doon ànd ci kaw suuf mu may jubbanti di ma laayee biir tey mu nga nale dem na man maa koy fekki loolu dong la la bàmmeelam di jëriñ amma boo fa yaakaaree ab barke bokkaale dugg si na boo fa yaakaaree pajum aajo bokkaale dugg si na boo fa yaakaaree pajum yaram bokkaale dugg si na kon moom ci boppam mujj naa nekk fitna ngir yow kon loolu jaam bi di ci war a bàyyi xel bu baax a baax yëg ne lu mel nii amoon na ci jamono ñu dal di yónni ab yonent muy nuu muallif bi mu ne loolu nag am na dalil wax ji ñu wax ne moom la ñu njëkk a yónni ngir mu woo nit ñi génnee leen ci bokkaale jëmee leen ci tawxid mooy waxu borom bi subhanahu wa taala ci suratu nisa mu ne ñu inna awhaynaa ilayka kama awhaynaa ila nuuhin wannabiyiina min baadihi mu ne loolu mooy lay ba mu ne borom bi subhanahu wa taala dafa wax yonent bi ne man day waxyu naa jëme ci yow ni ma waxyoo woon jëmee ko ci nuuhu ak yeneen yonent ya ma waxyu woon jëme ci ñoom gannaaw nuuhu kon loolu la muy wone mooy kamu njëkk a waxyu ngir mu xeex ak bokkaale mooy nuuhu alayhi salaam moom muallif bi nañu wa kullu ummatin ba'atha allahu ilayha rasulan min nuuhin ila muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ya'muruhum bi ibadati llahi wahdahu wa yanhaahum an ibadati taagut kon moom mu neñu xeet wu ne wu mos a nekk ci kaw suuf borom bi subhanahu wa taala jagleel na leen ab yonent muy wax seeni làmmeñ mu leen di digal di leen tere di leen digal nañu jaamu yàlla dong nag di leen digal itam nañu sori jaamu lu dul borom bi subhanahu wa taala tegtal bi di waxu borom bi subhanahu wa taala walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu taagut borom bi ne mboole seen xeet wu fi mos a jaar yónni naa ci ñoom ab yonent buy làkk seeni làkk te bu ñëwee mu ne leen jaamu leen yàlla moom dong waaye sori leen lépp lu dul yàlla bu leen ko jaamu de te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu waxee ne addu'a huwa al ibada kon loolu dañuy tiit lool bu ñu waxee ne ñaan mooy jaamu yàlla kon ñi ñuy dékk suñu loxo di leen ñaan ñu naan ñu leen di wax madad wala ñu leen di wax mbir yu ne te boo demee ci bàmmeel yi da nga gis lu ne ay permis yuñ fa teg ak ay diplôme yuñ fa teg ak loo xelaat ci àdduna ñu ngi ko teg ci bàmmeel bi ngir mu def ci barke borom bi subhanahu wa taala mu ne cëy ndaw gàtt xel ak doyadi waaye yow ki ngay woo ku dee la waaye boo xaaree ku dee mu defal la barke ci sa permis mbaa sa diplôme ah boo moytuwul yàgg fa dina am de yàgg fa dina am mu ne ñi ngay woo amwaatun gayru ahya ku dee la de yow ci sa bopp nag yëg nga ku dee la ndaxte ba mu nekkee yow muy wax ngay dégg ngay wax muy dégg ba benn bés mu ne tekk yëgootul nga ne wàcc na liggéey te liggéey ko waroon nag danga waroon na liggéey wàcc na ko moom mosul yéeg liggéey de wàcc na liggéey aa liggéey ko wàcc ndaxte liggéey ko waroon moom waruloon liggéey de kon heure boobu nag ci jamono jooja mu wóor la ne nag ab loram ak loram moo la gën a jege ci ab njëriñam loolu la borom bi subhanahu wa taala wax de ah mu ne darruhu aqrabu min nafsihi loram ndax boo ko fa bàyyi rek loru ndax boo ko fay bàyyi mu soppeeku de loo ko gëm nag yaakaar ko bu ruuxu ba demee nga bàyyi ko fa boo ñëwee dar bakkan de kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax nag bu baax a baax lañ ciy bàyyi xel kon nag gannaaw googu seytaane mooy ñëw yóbbee ñu ay mbir yu baree bari mu yóbbu xel bi de doomu aadama dootul mun a xelaatee xelam waaye da ngay déglu rek lu la seytaane di sa nga koy def te moom la mu bëgg mooy la mu waxoon borom bi subhaanahu wa taala doo leen fekk mukk ñu gërëm la keneen kay la ñuy gërëm bala ci hadisul qudsi borom bi subhaanahu wa taala mu ne cey bés penc ah mbir mu tàng mu ngi sama digganteeg doomu aadama ak jinne ñu ne borom bi lan la mu ne ana alladi xalaqtu wa ubida gayri wa ana alladi razaqtu wa shukira gayri mu ne lii dong la man maa sàkk ba pare ñu bàyyi ma jaamu keneen ku pakkastalu sax woo keneen dal di ma bàyyi mu ne man maa wërsëgal may wér gi yaram may la yëg-yëg nga lekk ba suur dal di naan ba man di giix dal dina jara fi jëfe jiw diw borom bi ne mer naa waaye maa ngi toog di la xaar nag bés buñ ne jébbal nañ ko borom bi ba mu ne la waaw yow maa la sàkkoon wala diw maa la wërsëgaloon wala diw maa la dundaloon wala diw maa yeyoo jaamu wala diw keroog da ngaa yëg ne borom bi subhanahu wa taala wallahi yow la ne aha wàcce woon naa sama téere wàcce sama yonent gannaaw yonent yi itam ma baaxee la ku lay leeralal la yonent ya doon wax ku lay leeralal man borom bi subhanahu wa taala la ma waxoon waaye nga dum mooyu rek ndaxte seytaane moo lay sa nga ne ah ñii dañuy wax rek dañuy wax rek yàlla waxul kenn dara aha ba nga dajeeg mbir ma bés penc nag rëccu lu dul nag sa jaam yaay sellal yooyu moom de mënuma ci ñoom dara mu waxaat borom bi subhaanahu wa taala yow mii laay wax de gis nga ci sa yoon wu jub wi ci lay taxaw di leen xaar nag di xaar doomu aadama yi mu ne dinaa ñëw wàllu ndeyjoor dinaa ñëw wàllu càmmooñ dinaa ñëw ci gannaaw dinaa ñëw ci kanam bés pénc doo leen fekk mukk ñu nekk ñu la gërëm duñ la gërëm dinaa fexe def lu ne mu ne ah waaye dinaa la waxal nag li may def ba boo ko gisee ku ko gis xam ne seytaane dugg na leen mu ne gis nga ñii dinaa leen topp di leen digal ba ma digal leen jur bu ñu amati nañu dàgg nopp ya wala jur bu ñu amati nañ ci def ay màndarga waaye dinaa dem sax ba ma ne leen nañu soppi ni leen yàlla bindee woon mu ne dinaa leen ko sant de yooyu yépp dinaa leen ko sant ah wala aamurannahum wala yubattikunna aadana al an'am wala aamurannahum wala yugayirunna xalqallah mu ne yii dinaa leen dem ak ñoom waaye lii teg nañ ci ay bët kon seytaane moomu nag li muy yées yépp nag respecté na ab kàddoom keroog ba mu waxee kàddu gi ba léegi ci lay xëy ci lay gont ba léegi li muy yées yépp kàddu googu moom jàpp na ko ci lay xëy ci lay gont borom bi subhanahu wa taala mu ne ko jaam yaa ngoog yaa ngoog waaye sama jaam yu baax yi moom manoo ci dara kul koo bëgg ci ñoom nag jëfandikool sa loxo jëfandikool sa tànk waral say fas lu la soob defal jaam yaa ngoog yaa ngoog waaye këpp ku la déggal bés penc ma boole la ak ñoom buggal kon njiit boobu mooy iblis mu ne mooy taaxut bu mag bi mooy iblis te borom bi subhanahu wa taala wax nañu ne iblis noon la jàpp leen ko mu nekk seeni noon iblis ci boppam noon la jàpp leen ko mu nekk noon kon naka la ñuy méngoo ak moom nag mu ñuy digal ñuy topp mu ne ñaareel bi mooy waman ubida wa huwa raadin ku ñuy jaamu mu bég ca lañ koy jaamu di ko sukkal di ko raamal te mu bég ca loola nag bu ñëwee ñépp jóg taxaw mu bég mu ne ndeke man kat am naa dayo mu ne torox nga nekk nga taaxut de alku nga doomu aadama day dal di suufe doomu aadama day dal di tere ay mbir moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ca la mu doon bañ mu ñëw rek nit ñi jóg mu ne leen bu leen jóg waay bu ma ñëwatee bu leen jóg képp koo xam ne la koy bégal mooy bu ñëwee ay ñoñam jógal ko mu ne loolu jàddu yoon la loolu dina yóbbee nit ci rëy rëylu waaye boroom xam-xam yi wax ca anam ga nag mu ne bu fekkee ne jog bi jogub teraanga la ngir xam-xamam am ci salaf yu ko daganal waaye ñoom ñépp nag ne nañu bakoo gën yépp d'accord nañ ne ba koo gën amma ki ñu koy defal nag bés buñ la ko defalee nga bég rek nekk nga taaxuut fuñ la ko defal rek yow itam danga waroon a wax ne jaru ko walla nga won leen ne yeyoowoo ko mu nekk suufi loolu bu amee loolu dina fekk du la yóbbee ci taaxuut moo tax mu ne ñu fii man ubida wa huwa raadin ku ñu jaamu jaamu bi fes ñu ngi koy gis nag mooy ñaanee ak géñee nga ne bu soobee yàlla ak diw diw moomu dal di ko dégg noppi ci ah nga dal di sant diw ci ba nga amee xiwal diw moomu dégg ko noppi ci mu ne ah kon de diw moomu nekk na taaxuwut maanaa samp na boppam ñu jaamu ko te du borom bi subhaanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko ko defalee dafa tiit ne déedéet benn waay moo ko fekk ci kaaba bi mu ne ko suba day demay tukki insha allahu wa sita bu soobee yàlla ak yow suba dinaa tukki mu dal di tiit subhaanallah ajaaltani lillahi niddan insha allahu wahdahu mu ne ko maa ngi tudd selluk borom bi subhaanahu wa taala ndax dang maa bëgg a def moromu yàlla su soobee yàlla moom dong nag ndaxte suma coobare munu cee soppi dara kon yooyu nañu ci bàyyi xel bu baax a baax mooy ñaareel bi mooy premier vice président bu iblis ñetteel bi maanaa ñaareel bi tegu ci iblis muy waman da an naasa ila ibadati nafsihi mooy ku woo nit ñi ne nañu ko jaamu moom ci boppam mooy digal nit ñi ne nañu ko jaamu bi maana ku ma gis rek texe nga faqad da annaasa ila ibadati nafsihi jàkkaarloog doomu aadamay naan ku ma gis rek texe nga inna lillahi wa inna ilayhi rajiun walla nga jàkkaarloog doomu aadama nga ne ku gis diw texe na woo nga leen nañu ko jaamu ndaxte dañuy dem jàkkaarloog moom jàkkaarloog jaamu ndaxte boo gisee ñuy tekkaaral duñu geesu duñu xesenu duñu def dara di julli ah lu mooy jaamu borom bi subhanahu wa taala di boo ko defalee keneen ku dul borom bi faqad abadtahu kon ku woo nit ñi ci nañu ko jaamu kooku itam nekk na taaxuut mooy deuxième vice président bu iblis inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñetteel ba wa man iddaa shay'an min ilmi lgaybi ku dal di woote woone xam na lu faddu xam na gaybu dal di wax doomu aadama yi man xam naa xëybu xam naa li nekk ci seeni xol te fekk la mu ca jublu du ngir kaf léegi-léegi nag doomu aadama def ko fekk lam ca jublu mooy kaf bu dee kaf yooyu nag waxuñu yooyu walla delloo si doomu aadama yi cax leen waxuñu loolu ndaxte ñu ngi fàttaleku ibu saako rahimahullah moom dafa bari woon di def yu mel noonu muy waxtaan rek ba mu mel ni doomu aadama yi dañu xaw a gémmintu mu ne déglu leen ñi fi nekk ku ma laaj ma wax la li nekk sa xol ku ma laaj tey rek lu nekk sa xol ma dal di la ko wax benn waay dal di jóg fële ne man man mu ne bàyyi leen ko mu ñëw bàyyi leen ko mu dal di ñëw waa ji ñëw ba tolloog moom mu ne wax ma lu nekk sama xol mu ne ko fenloo ibu saako ay naam ne ko fenloo ibu saaxo waaye waa ji dafa yëngal bopp rek toog lan moo nekk ci xolam fenloo ibu saaxo xala ndaxte wóor na ko ne ibrahima saaxo xamul lu nekk ci xolam xamu ko ibrahima saaxo it wóor na ko ne xamul lu nekk ci xolu jaam yi waaye nag mbir yu mel noonu bu dee ci anam googu day nekk lu dagan amma nag bu nekkul ci loolu mooy fey ma ma nelewal la kooku mooy taaxuut bi gën a màgg nag nga xam ne njàpp bu dogee sax du ko xam mooy ñii di def listixaar ñooy taaxut yi gën a màgg yaa ngi tukki nga fay ko moom mu tëdd di nelew borset mu wax la taaxut ndaxte yow ni nga réeree sa tukki boobu ni muy mel moom noonu la ko réeree faqidu shay laa yuuti xamu ko kon ba nga ko wuutee ci moom waxu la ne xamuma waxu la ne manuma waaye mu dem ba tàggoog xelam ñëw ne dina la wax njàpp ma bu dogoon sax yëgu ko kon kooku mooy taaxut dëgg dëgg nag tuddee ko nu la neex nag istixaara bi islaam tëral mooy ku ne moo koy defal boppam ku nekk moo koy defal boppam yonent bi ne mbir moo bëgg rek defal istixaara balaa nga ciy dugg mooy jullil ñaari rakka yu dul farata ñaari rakka te du farata jàngal fatiha ak lu la soob ci quraanul karim moo xam guddi la moo xam bëccëg la boo paree jàng ñaanub istixaara allahumma inni astaxiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika ila axiri du'a yow borom bi subhaanahu wa taala maa ngi lay tànnuloo maa ngi lay tànnuloo ci sa xam-xam ak ci sa kàttan yaa xam day xamuma yaa man day manuma mbir mii ma bëgg a dugg yow borom bi subhanahu wa taala bu dee moo gën ci man ci sama diine ci sama dund ci sama mujjantalu dund mbir mii bu dee moo gën ci man gaawal ko mu dal di ñëw ammaa nag mbir mii su fekkee gënul ci man ci sama diine gënul ci man ci sama dund gënul ci man ci sama mujjantalu dund dàqal ma ko mu dal di ma sori xajjima ma dal di ko sori waaye indil ma leneen lu dul loola te nga bégee ci loolu yow borom bi subhanahu wa taala loolu dong mooy istixaara waaye sart ba nag amul ne bu ma tëddee gis dara de déedéet ñu bari ci mbokk yi nag yaakaar nañ ne boo istixaara boo tëddee da ngay gént laa laa laa gis nga doomu aadama lu mu bëgg rek gént ko jotewul dara ak istixaara dara li la yitteel tere laa nelaw bés bu ne nga xëy ci gont ci booy tëdd di ko gis ndaxte bakkan bi bu noppaloo rek ca la mu yendoo woon loolu lay dal di dal di gis kon loolu istixaara bi jotewul ak dara istixaara mooy tànnloo yàlla nga dal di sukkandiku nag bu mbir ma sottee nga xam ne borom bi tànnal na la ko bu mbir ma sottiwul nga dal di téye sa bakkan gëm ne gënul ci man bu gënoon borom bi defal ma ko nga wuuti leneen loolu mooy istixaara waaye bu ñu jàpp mukk nag da ngay gént wala da ngay jox ma sàmba xaalis mu nelewal la loolooy ñàkk bopp nelew ba pare ñu fay la kon ki ko jox moo ñàkk bopp kon kooku mooy ki ci tegu keneen ki ci mujj mooy man xakama bi gayri ma anzala allah mooy këpp ku atte woo lu dul li borom bi subhanahu wa taala wàccee ku atte woo lu dul lu mu wàccee nga dal di toog nga ne nangam daal ku ko waxoon nangami yoon am nga nangam ku la ko wax tur boo xam ne sax du turu yàlla jegewul sax turu yàlla mu ne la tur bii daal boo ko waxoon téeméeri yoon am nga nangam walla mu ne la rakkaay nangam ci rakka daal boo ko jullee am nga nangam am na sax ñu ci taalif ab téere bés bu ne ñu ne boo jullee nangam def nangam am nga nangam tawaariit yàlla leen ko wax defal nangam am aljanna loolu mbindeef xamu ko ku ko gëm rek taawut nga dugg nga ci tawaariit ndaxte xakama bi xayri ma anzalallah atte nga ci lu yàlla wàccoo ndax ne ku def nangam am nangam loolu mooy hukmu loolu mooy atte kan moo la ko wax yàlla waxu la ko yonentam waxu la ko mbir moomu nga def ci boppam bidaa la faf boo ko defee faf da ngay am bàkkaar waxatuma la tàbbi aljanna waaye boo moytuwul safara nga jëm kon juróom yii mooy tawaaxiit mooy iblis ku ñu jaamu te nga bégee lañ lay jaamoo ku woo nit ñi nañ la jaamu ku woote woo ne xam na lu fàddu ak këpp kuy atte safaanoog atte bi yàlla juróom yi ñooy tawaaxiit yi moo tax mu dëgëralee ko ci waxu borom bi subhaanahu wa taala fi muy waxee ne laa ikraha fi ddiin qad tabayyana rusdu min alxoy faman yakfur bittaaguuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati lwusqa borom bi subhaanahu wa taala mu ne forcé amul ci diine forcé amul ci diine waaye aaya bii nag ñu bari ñu ngi ciy juum dangay wax nit jogal julli mu ne la waaye laa ikraha fi diini du loolu de laa ikraha fi diini du loolu bi maanaa laa ikraha fi diin bul forcé nit ci pas-pas boo ko forcé day doon naa fekk nga ne ko force nga gëmee nii te mu wóor la ne am nga doole dinaay ne waaw waaye est ce que moo nekk ci xol bi la pas-pas bi nekk ci biir xol la borom bi subhanahu wa taala wax laa ikraha waaye këpp ku tudd ñaaru baatu seede yi boo bañee julli dañ lay faat kon kay ikraha am na ci diin ku màndi dañ lay duma kon kay ikraha am na ci diin laa ikraha fi diin mooy yéeféer bale nekk ca biti bu ko forcé mukk nga ne ko yonant bii muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni te nga ëpp ko doole mu ne la waaw yàllaa ko yónni waaye ndax mu ngi ci xolam nekkul ci xol bi kon laa ikraha fi diini ci anam googu la nekk borom bi subhaanahu wa taala mu ne ndaxte dëgg biir na ci kaw caaxaan leer na lépp a leer léegi kon leer na mu ne nag ku weddi lu dul yàlla nga gëm yàlla mu ne jafandu nga ci buum bu dul dog bi mukk mu ne la nag moom mu allif bi mu ne wa haada maana laa ilaha illa allah mu ne lii mu la wax nag mooy maana laa ilaha illa allah weddil ku dul yàlla gëm yàlla loolu bés boo ko defee rek gëm nga borom bi subhanahu wa taala waaye boo ko deful rek gëmagoo bokkaalekat nga moom mu allif bi mu ne ñu wa fil xadiisi mu ne ñëw na ci xadis fu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne rasul amri al islaam wa amuudu faqarihi aw wa amuuduhu ci riwaaya alsolaa wa zirwatu sanaamihi al jihaadu fi sabilillah mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne li gën ci islaam rasul amri li gën ci mbir mi yépp day mooy la ñuy tuddee islaam te mooy laa ilaha illa allah mu ne wa amuuduhu maanaa yaxub digg gannaaw ga yaxub digg gannaaw gi ci mbir mi bu doon doomu aadama bopp bi mooy al islaam yaxub digg gannaaw gi mooy assolaa bu bopp amul du dox te du dund waaye bu yaxub digg gannaaw amul it du taxaw de kon mu ne mooy assolaa wa zirwatu sanaamihi li gën a kowe nag ci islaam mu ne mooy al jihaadu fi sabilillah mooy góorgóorlu ci yoonu yàlla mu ne ku góorgóorlu ci yoonu yàlla nag kooku moo matale mbir mi kon ñett yi ñu daldi ci bàyyi xel mooy al islaam te waxoon nañu ko maarifatu diini bil adilla jaaroon na ci benn ponk mooy xam diine dëgg-dëgg islaam teg ko ci ay tegtal lu teguwul ci ay tegtal itam amul njariñ te nga yëg ne diine bu amul julli du diine waxoon nañu feneen ne alsalaatu imaadu diin man aqaamaha faqad aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin mu ne boo déggee ñu ne diine jullee tax ku saxal julli saxal nga diine mu ne waaye ku weddi julli bàyyi ko rek weddi nga diine kon man taraka salaata faqad kafara képp ku bàyyi julli te tey ko weddi nga bu amoon soxna dañ ko war a nangu dañu war a tas sëy ba te bu la ñaanee jabar bu ko may de yéeféer la allazi laa yusalli yonent bi lum la waxoon ci ku lay ñaan soxna ida jaakum man tardawna diinahu wa xuluqahu su ñëwee ci yéen ku ngeen gërëm diineem waaye ku dul julli gërëm ngeen diineem man laa yusalli faqad kafara képp ku dul julli yéeféer la du dagan mukk ñu jox ko asaka du dagan mukk ñu may ko soxna du dagan mukk ñu jaxasoo ak moom ndaxte kaafirun xaalis kooku ab yéefér la kooku dara jotewul ak ñun lu dul ay sayfu jaasi rek moo nekk suñu digganteeg moom fekkoon ne yàllaay atte fekkoon ne diinal islaam yi la ñuy attee ni kon ren dinañ ko bu yàgg kon nag loolu ñu bàyyi ci xel ñu xam ne lay wottu diine ji mooy aljihaadu fi sabilillah mu allif bi nag neñu fi ma tàmbalee ak fii wallahu aalamu yàllaa xam wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam kon téere bii ñu doon tuddee al usulu salaasa fii la yem kon borom bi subhanahu wa taala baaxee nañu ñu tàmbalee téere bii ci bismillahi rahmaani rahim ñu mottalee ko tey ci alhamdulillahi rabbil alamin kon ñu ngi koy ñaan yool bi ñu jàngee téere bi yal nañu ko fekk ëllëg waaye yal nañu baaxee itam lañu dëggoon ci téere bii ñu dal di ko jëfee li ci nekk dëgg yal nañu ko baaxee lépp lu ci nekk njuumte itam yal nañu ko jéggal téere bi jeex na nag wonewul xam-xam bi mat na waaye dañuy wéy di ko nafar waaye nag dañuy tànn beneen téere ñu def ko ci bérébam maanaa beneen téere boo xam ne day wax ci pas-pas ñu jagleel ko dars bii nga xam ne mooy darsub altine téere boobu nag ñun ñépp mën nañ bokk xelaat ci bépp téere bu ñu gis ne dina mun a ànd ak place bi ñu ngi doon xelaat nag kitaabu tawhid benn téere boo xam ne mu allif bii moo ko def muy kitaabu tawhid ñu ko doon xelaatee def ko ci place ub téere bii amma keneen bu gisee téere bu mu yaakaar ne moo ëpp njëriñ mu yaakaar ne mooy gën a yomb ñu dal di dem ci téere booba waaye bëgg nañu nag mu gën gën a avancé ci bii ndaxte gis nañ ne ñi yore téere dañuy néew lool waaye bëgg nañu bu ñu demee ci kitaabu tawhid wala beneen bu ñu gis ñu bari lool dal di ko jënd dal di ko yore mu nekk ab njàng moo xam ne mu sax lay doon ndaxte bëgg nañu kuy def xalqa bi bés bu ñu ko gisul keneen dal di ko wuutu def xalqa bi waaye su fekkee ne wax dëglu rek jóg dem la loolu day mel ni ku dem conférence rek ndaxte am na ñoo xam ne ñaar fukki at ren ñu ngi dem conférence waaye ba léegi mënuñu def conférence kon nag fii moom bëgguñu mu mel noonu dañu bëgg dëgg-dëgg at rek boo ko jàngee kiy def xalqa bi bu fi nekkul rek yow nga dal di ko wuutu def ko wala dem ci beneen jàkka sos fa beneen xalqa dëgg dëgg nag doylu nañu ci nekk ab taalibe nañu nekk ab sëriñ nag ba jazakumullahu xayran kon mbokk yi am na benn këyit bu fi ñëwoon